برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن قلب المكتوم لنا أبي العباس سيدي أحمد السجان وعن سائر خلفائه على رأسهم شيخ الإسلام وسادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته ني سنت يالا بو باخ دي جولي سي يونت بي دي tatagal mbooloo mi di tatagal alamul islaami yëpp ci leen ndokkeel ci teru weer wi nga xam ne weer yi mooy gën ci weer yi moo daana Cheikh daana wax ne njëkk yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi weer bi benn weer la woon ci weer yi rek bisab altine itam bis la woon ci bis yi rek waaye bi yonent bi ñëwee lu yàlla may ko ngëneelam gi mu indi ci la weer wi gënee ci weer yi juddoom bi gën ci juddu yi moom itam muy sang yonent yi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne ana sayyidu bani aadama wala faxra man maay sang yi mboolem doomu aadama yi waaye du suma tiitar Mawlana Cheikh waaye ne ma firi ko ne lu tax mu wax ne wala faxra du loolu du suma tiitar mu ne waxtu boo xam ne yonent mi ngi ci biir mbooloo ak ci biir eh, mbindeef yi mu ne su boobaa mu mooy seen sang waaye su demee ca maqaama ca ca ca ca péer yàlla ba foofu jaam la ko fa yàlla tuddee moo tax jaam googu moo ko gën a neex moo tax yàlla maqaama yi ko may yëpp kowe waaye li ci gën ràññeeku mooy bi ko yàlla mooy mooy yooyu yëpp yàlla jaam la ko ci tuddee ba mu koy oote ba muy oote jëm ci yàlla wa innahu la maqaama abdullah yadoo mm-hmm. ak ba nga xamee ne mi ngi koy jox julli yi nga xam ne moom la lislaam moom moom mooy mooy bopp mooy boppi lislaam lislaam juróomi ponk la waaye bàyyi mu ne su fekkee ne lislaam jëmm la julli mooy mooy bopp bi bopp nag jëmm joo ko dindi rek bakkan doon fa nekk ba nga xamee ne yàlla am koy jox julli googu joxut ko malaaka yi nga joxut ko malaaka joxu ko waasta aada yàlla ci jaam yi mu daan yónnee daf daan yëkki dañuy dégg baat rek xaatif xaatif mooy kàddu goo xam ne da nga koy dégg te doo gis jëmm ja wala muy def waasita waasita mooy malaaka wala kàddu comme ni nga xam ne noonu la doon waxee ak Moussa waaye nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom comme moom moo doon sangi yonent yi ni ko yàlla yónnee ni réewut ni mu yónnee yonent yi ci des moo tax moom ba mu koy jox la mu koy jox nga xam moom la lislaam mooy mooy jëm mooy jëmmal lislaam muy julli dafa yónni dafa yónni jibril mu indi gawar boo xam ne bu tumuranke la ci gawar yi bokki wat ak yi nit ñi daan war muy alburaax mu yóbbu ko ba asamaan amatut kaw amatut mu dem ba jibril ne ko fii séddatu munta jibril ne ko fii laa mën a am mu mu mu mu ne nag gannaaw gi nag lay xuus di jàll juróom-ñaar mu ne ko juróom-ñaar fukki junne pay ngi ci suma kam yoo xam ne bu ma ci safara di lakkee ci cumkoor noonu laay noonu laay lakkee mooy nag moom muy xuus di dem di xuus di dem di dem dem dem tase nag mboolem lu yàlla bind dem na ba kaw amatut dem na ba moom yaramam wi jëmmam ji li ci doon matière yëpp lu ne delloo na ko ci cosaan ndox dellu la ca doon ndox na ko géej la ca doon suuf delloo na ko suuf ba dara desu lu mooy la fa nekkoon loolu nga xam ne moom la bàyyi di wax ne nuuru wu nuuruhu awwalu wujudi wujudan muy leer googu nga xam ne yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkut yàlla ni amam gu njëkk ga feeñu toon moo tax mu ne ñu ne bu njëkk ba feeñu ndax amut ku koy seede ba mu bëggee nag ay ñu ko jaamu mu daal di jël ci boppam def ko muy yonentu yàlla Muhammad gannaaw gi nag yonentu yàlla Muhammad booba ca jëmmam ji ci la defaree lépp lu mu defar ñaqam ci lañ defaree géej géej ci lañ defaree lépp lu ñuy defar muy suuf ak asamaan ba ba ba ba ba defar kii ci juróom benn fan gannaaw gi nag mënoo indi aadama aadama dafa mel ni mooy maami yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy jur mboolem doomu aadama yi waaye nag ma yonent yi mooy maami maami mooy maami maami maami bàyyi bàyyi ndax aadama ci boppam suuf sañ ko jëlee suuf soosé géej gañ ko jëlee mu nga jógee ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñëwam dafa jotagutoon moo tax ñu daal di jiital ko moo ba yàlla gaarale ñooñ kaw ak ñoom suuf neen xal naa bind ay mbindaakoon ñema ci gërëm ma yóbbu leen aljanna ñema ci gërëmut ma yóbbu leen moo tax ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp ba mu leen gaarale ñoom ñëpp ñu gàntal mu gaara gaaral aadama aadama ne ko man su fekkee sa ngërëmaa nekk kon man nangu naa mu ne ko nag gannaaw nangu bi nga nangu nag médaille bi ma lay mooy dafay feeñ ci zaay na yow yaay maam yonent yàlla Muhammad ndax yonent ñi ma ko yónni jot ñëwaguñ moo tax nag yonent yu ko dalee li ko dalee ci yonent yàlla Isaa yu ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla Isaa ñoom ñëpp ay bëkk néeg yonent ca moom lañ doon taataanee leer gi nga xam ne moom lañ daan indi bi mu ñëwelee boppam nag moo tax kenn dootu ñëwati te benn téere moo tax ci xajatu wadaa mun a alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina xaraa dootu daga dootu wàcc xaraam dootu daga yàlla matal na diina ji mu daal muy yonentu boobu nga xam mooy sang mi ne mu ñëw fi nag comme nag moom dundam bi juróom benn fukki at ak ñett juróom benn fukki at ak ñett la dund fukki fukki fukki fukki ba mu amee ñeent fukki at la ko yàlla yónni ba mu amee euh, ba mu amee la ko yàlla yónni ba mu ko yónnee mu toog ci mbokkam yi ñooñu rek lañ ko ebal ñetti at mu ooleen ñu të mu ne ko oowal ñu ci des mu ooleen fukki at muy fukki at ak ñett hmm. ñu të mu door mu door a mu door ko digal mu dem gàddaay ba mu gàddaay dem Medina ba mu demee foofu la foofu la kiyee ba nga xamee ca bani aw fa mu njëkk a jaar fa mu njëkk wàcc toog na fa ñaari semaine foofu la la njëkk a jullee wàcc julli aji mu wàcc foofu itam fa la defee fa la fa la doon jubloo eh, kaaba eh, kii béytul maqdis mm-hmm. yàlla nekk fa wali wa jëxeka chatre masjidi haram mm-hmm. waaye ba mu gën na ba mu fa jullee ñaari ajjuma mu xool ne fii duut fa moñ fa mi yàlla jox ko ndigal mm-hmm. ñëpp naan ko ñëwal fii la doole ji nekk fii la doole nekk gannaaw gi nag mooy leen bàyyi leen gëlëm gi rek dañ koo digal muy dox ñu topp ko muy dox di dox dox dox dox ba ci fii nga xam ne mooy jumaa ji ci baa ci ci baa baabu jibril mu mu sukk foofu wàcc dañ foo ne yonent dafay wàcc mu daal di jógaat ba mu jógee doxaat ay pas daal di àgg fenn sukk nag daal di wàcce baatam daal di nguur mu ne xaaxunal manzil incha allah bàyyi mu ne lu tax mu jooy yoonu mujj yi mu nguur mooy ne xam ne ne foofu la yonent bi foofu lañ koy suul juróom benn fukki at yooyu mu ci cee dugg ci taxawal lislaam baay mu ne jikko woon na fukki jikko yoo xam ne benn bu ne rek na état ak li koy li koy jàppale yëpp moom kenn mu doon ilimaan bi mu doon moom kenn mu doon jàngalekat bi moom kenn mu doon docteur bi moom kenn mu doon xaadi bi nga xam ne lu lu lu lu atte ci sëy yeeg ak réeroo yëpp moom moo koy atte moom kenn moo doon moo doon jàngalekat bi ndax téere ba koy jibril la jàngal sax dafa ñëw jàngu ma doon ma jàng mu njett ko ba ay bëtam ni bëgg a génn mu daal ñu ko jàngal ma mu ja moo tax moo njëkk jàng moo ci moo moo ni téere bi nga xam ne njàng yëpp ci moom la ñu alquran ba léegi su fekkoon ne yonent bi indiwul benn mojise benn kéemtaan mooy kéemtaani kéemtaan ba léegi di tax lislaam eh, occident yi ak ñoo ñëpp ñu jóg di ko def ko noonu lu ñoo seet seet seet seet luñ ko xeexee amuñ ko luñ ko xeexee mu ndax moom li ci nekk jamono yi soppeeku na mbooleem kawteef yi ñëwoon yëpp ay wax rek lañ ci dégg waaw te la ka ca gën a mooy Suleymaan ak Souleymane ca ngelawam la ak loolu ay tubaab ay defar yoo xam ne mu ngi wax fi fu la neex te loolu la ci lañ daan ci lañ daan waaye bàyyi mu ne li yàlla bind ci kéemtaan ci jamono yi yonentu yàlla Muhammad bind ko ci benn jamono sog moo tax ñu xam ne kon du ne mojisaat mooy tax a gëm yàlla yàllaa ko def bunt bu mu jaarale ñu mu bëgg rek daal di ooye leen ci nga xamee ne moom mu indi alquran yi nga xam ne ba léegi tubaab yi dañuy dem ci laboratoire yi ak gis def ay gëstu nga gis ku def ay gëstu ñeent fukki at ba àgg ci benn daara foo ne moom moo ko trouvé ñu ne ko lii yonentu yàlla Muhammad ma mhm. juddoo woon ca Makka yaroo ca yaroo fa ba am juróom fukki at ak ñett mu gàddaay dem Medina wax na ko bu yàgg te lii nekkul ci benn téere te science mënu ko wedd waaye mu ne mu ne Quraysh li leen gën a jaaxal rek mooy ne dañoo foogoon ne li maam fenn loo yonentu rek lañ ñu indi benn preuve boo xam ne yonentu wax ne loo xam ne jamono wala dëppwut dëgg rek bañ wone nag kii du lim nekkoon dëgg waaye loolu moo leen të moo tax moo tax alquran ni leen mu ne mu ne fa in lam tafaalu walan tafaalu waaw mu ne mu ne mu ne mu ne inna alquran mu ne alquran bi nga xam ne yàllaa ko tànn yéen ñëpp su ngeen kiyee ni leen faatu bi achi bi achi sura misli bi yàgg faatu bi surati misli mën leen a indi alquran yu mel ni alquran yi mën leen a indi fukki saar indi leen sax benn aaya boo xam ne nit ak Guinée dañ ci dimbalaa ne mënu leen ko indi te foofa moo doon capital yi balaaxa ak fasaaxa muy Makka ndax foofa fa la sukk occas nekkoon at mu jot comme kii Jeux olympiques bi ñuy def nit ñi daje ku nekk ka gën a ku nekk ka ca jël drapeau ñu jël leen defal la médaille booba booba li ñu ne woon ku gën a fasaaxa ci arab yëpp ñu dajee foofa nga indi way yi ci gën a wér ñu jël ko daal di wékk ko ci kaaba ga def ko ay mu àllqaat ba ca déwén sax ñu ne ñii ñoo ñooy jëloon pee yonent juddoo seen kanam mës ñu mës na génn lu may bi mu amee la gën a màgg mu wax joo xam ne ca fasaaxa ba ak ca balaaxa ak ca attee may attee dara ko wedd maanaam ah, alxuraan yooyu bàyyi mu ne loolu rek dafa doyoon ci kéemtaan waaw ah, mu mu mu ñëw indi ñu ko bàyyi ñu ko bi mu ko indee koo xam ne jàngut ñu jox ko mën dara mënoon na cee rëcc waaye yàlla moo wax ne mu ne alquran ji moom moo koy moo koy moo koy garde ba inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun alquran ji yàlla koy garde boppam moo tax mu ne nag bi nga xamee ne ñëwoon ba agsi fii def nañ lu nekk def nañ lu nekk am na ay ay yahud yu doon jël sax alquran di ko di ko sàpp di ko di ko sàppe wa man yettabee xayra al islaama diinan fa lan yuqbala minhu ñu dindi xayra gi wa man yettabee al islaama diinan fa lan yuqbala minhu ñu def ko ay téere mu tasaaroo bàyyi dem ba ci benn dëkk ci dëkki Europe yi mu dégg mu dégg fa alquran dégg fa loolu mu jël fexe ba am fa kaamil dem ba ca Misra ca 61 mu dem ba ci jamaa Abdu Nasr mu ne ko tey Misra mooy pays bi nga xam ne moo gën a rëy ci ci ci ci ci ci ci ci ci dëkki araab yi ba pare nag yow yéen yéen yéen am nga ma responsabilité alquran ñu ngi ko yàq mu ne ko nu may def mu ne ko da ngay seet ñi gën a mën a jàng ñu jàng ñu ñu enregistré ko saare ko foofu la bàyyi toog bañ defar nusxa murata yi ñuy wax nii ñu defal koy jox ko ci lu ma téeméeri nusxa mu ñëw indi jumaa ju nekk ci Sénégal mu dugal ko bu mu ko fi indee dañoon du fi jib mukk la li xaraam na kenn du ko teg ci rajo alxuraan kenn du ko def ci disque waaw ba bàyyi bind ci téere ne téere ne ne ne alxuraan dagan na ci ci ci ci ci ci alxuraan ndax ñi ciy wax ay waxi kaf ñoom ñooy kaf waaye ñi nga xam ne dëgg la ñu wax ñu waxee dëgg dem mën naa jëriñ jur ñi léegi jumaa ju amut bu am bu amut rajo sax fi ne foog ne dootul juma loolu kon yàlla moo koy def bàyyi nag daana wax ne man ragaluma ci lislaam noonu lislaam yi max mënaluñ ko dara waaye doomi lislaam yi liñ mën a yàq ci diine ñoom ñi ne ci biir ñoom ñoo ko mën a yàq kon nag suñu yàlla boolee ci kuréel bi nga xam ne ñu ngi sant yàlla di màggal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yëngatuy Mawlaana Cheikh Ibrahim moo doon def doon nit ñi dañ doon kër kër yi mu ne fexe rek ba nit ñi xam kan mooy yonent yàlla Muhammad suñ ko xamee foog ñu bëgg ko suñ ko bëggee foog ñu topp ko suñ ko toppee suñu àdduna ewen suñu àllaaxira ewen loolu moo fi indi gàmmu gàmmu daan nañ ko def njëkk ci ci Sénégal naka jekk kawoon gii sax am na gàmmu gàmmu goo xam ne waaw dañ day waaw ay ay pola ñi nga xam ne am na ñoo xam ne dañ daan wàññi am na ñoo xam ne dañuy tëgg am na ñoo xam ne dañuy indi ay ay ay kii carnaval la woon daal waaye Mamadou Abdoulaye moo njëkk a dem ba mu demee daal di ñëw ba mu ba mu demee Fass mu indi ni nga xamee noonu la ñuy tëralin bi nga xamee moom la ñuy defee jumaa ji di ko jàngee wasifa mu ñëw def ko waaye itam mu njëkk jël euh, siira yonent bi mbooloo mi suñ dajee dañ leen wax lu jëriñ ci yonent bi ba léegi daje yu bëri na ci waaye dajee wax yu yonent jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi daf ko daan wax am foo xam ne daf koy jàpp ba muy jooy am foo xam ne daf koy jàpp ba muy reer waaw ci façon bu mu koy defee ci ni koy déggal ni mu koy neexalee ba dugal ko ci xoli nit ñi ndax suñ ko xamee rek bëgg ko suñ ko bëggee topp ko suñ ko toppee suñ àddina éwét moo tax mu ne moom boobu dafa dafay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ba moo tax muy wax ne ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidun yonent sang gën ci mbindee fu mu teg tànk ma ne ma teg sama tànk topp ci kawam su taxawee nag sama dem mënatu ta am moo tax alquran ma ñun mënoon nañoo wax ne ñun yàlla dafa wax ne wa maa arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi su tax ak góor yàlla yi nekk Sénégal dañuy wax ne ñun yónniwuñ ci ñun kenn waaw xamuñ xamuñ xamuñ yonent bu ñuul xamuñ yonent boo xam ne ci Afrique la dëkk waaye nag xam nañ ay góor yàlla yoo xam ne su yàlla doon yónni téere ba léegi amul sikk na ñooñu dañ bokk ci yonent yàlla yi danañ bokk ci ulul azmi itam waaw ñooñu ñoo ñëw tabax Sénégal tabax yooyu ñu ko taxa nag dañ ko jaarale ci méthode boo xam ne dañ koy dugal ci xol yi moo tax nañ ko tuddee xaadir nañ ko tuddee tijaan yi nañ ko tuddee murid yi nañ ko tuddee lu nekk waaye façon la rek méthode la boo xam ne ka bawal moo gën a mën a wax ak bawal bawal yi ka ca saalum moo gën a mën a wax ak saalum saalum yi ka ca kaveer moo gën a mën a wax ak kaveer yi su ko defee ñu wax leen ba nga xam ne dégg nañu suñ ko déggee xam ko topp ko moo tax alquran fii ci Sénégal la gën a dëkk ci mis Makka gëm juddoo wala ci Medina nga xam ne fa la fa la fa la borom borom yëf yi mujjee waaw soo loo bëgg bëgg bëgg suñ doomi réew mi gune yi gune yi koo ci gis rek mébétam mooy mu am visa dem Europe waaye ñi bëgg diine dem seen bëgg-bëgg yëpp mooy dem aji màkk waaye soo fa demee doo fa gis mukk loo xam ne gisoo koon Sénégal loolu nag yàlla ak góor yi yàlla yi nga xam ne ñoo doon liggéey foo natt juróom fukki kilomètres ci senegal góor ak yàlla nga fa liggéeyal boo xam ne Sénégal mën nañ cee fayeku mu daal mu doon ten doon doon tono moo tax réew mi neex a amee moo tax réew mii tam mën a amee parce que man nekk naa Égypte benn dërëm rek dañ ko yokk ci misi mburu nit ñi di manifester di manifester di di toj di yàq di lakk kii ba bañ na leen wàcce nañ ministre ba bañ na leen delloo nañ ko wàññeetuñ ko ñu ne déedéet ministre bi xalaat bi na wàcc ñu wàccee leen ko fii nag soo demoon ci bitig bi léegi na jaay a mburu fekk ñaar fukk ñaar fukk lay jar ñu ne léegi fanweer la dag naan yàlla yàlla yàlla may luñ ko jëndee rek loolu mooy gëm yàlla gëm yàlla soo ko amee mooy ngànnaay loo xam ne dara mënu koo mën mënu ko yàq moo tax doomu Sénégal euh, liñ xam daf leen a jege moo tax moo tax euh, xamuñ valeur yi waaye Sénégal soo demee ci bitim réew dangay foog ne réew mu rëy la dangay foog ne réew mu am ni Nigéria ak Égypte yoo xam ne ay centaine de million lañ waaye nag fii matuñ sax ñaar fukki million waaye yu am valeur lu leen tax a am valeur mooy dañoo góor yàlla yi dañoo ñëkk ci ñoom nee nañ bi français yi ñëwee fii sax ci Sénégal liñ doon wax ak ñoom communication yi ñu ngi ko waxee ci arab waaw loolu wane ne kon alxuraan yàgg na fi loolu tax góor yàlla yi di liggéey yëngatu di liggéey xam nga ne su fekkoon ne yonentu ñaan toujours bàyyi daan bàyyi daan ñu wax ne julli ci yonent bi mooy ñaanal yonent yooyu yàlla yàlla nga teral yonent bi yàlla nga ko màggal yàlla loolu yëpp yàlla def na ko bu yàgg waaye mun a ñaanuñ ko ñaanuñ ko waaye waaye dañ koy wayaat koo xam ne yàlla jox na ko lépp wax na ko ne amoo bàkkaar sax waaye su amoon sax baal naa la ba pare yow su ne ko su taxutoon na yow du ma bind nga naan yàlla yërëm ko moom moom moom yërmaa moom yàlla li mu wax ci moom mooy dëgg ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim loolu moo doon tànk mu bàyyi ko fii ba nga xam ne nga ne askanu ne yow taalibi bàyyi nga rek war nga jikko yi li mu waxoon fukki jikko yi waxoon ci yonent war nga cee am ñaar wala ñett yoo xam ne yii moom óor na leen jikkoy Cheikh Ibrahim su ko defee su boobaa nga ambassadeur nekk fu nekk loolu moo tax réew yi daan ubbee ci jaas yi ndax booba dañoo dafa amoon ay effort yu fa nekkoon yoo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo nuroon ci ci ci ci réere yàlla waaye nag Mawlana Cheikh Ibrahim ci xalimbaam ak ci dàllam rek la def dem fu nekk toj toj boo xam ne waaw lim ci yokk ci jamono yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yokku ci woon li mu yokk ci tariqa bi ci jamono Cheikh Ahmad Tidiane yokkutoon loolu ñu ngi ciy sant yàlla mu bàyyi fi euh, ba mu fa jógee ak ren ren mooy ñeent fukki at ak ñaar waaye tey ba demee demee ci néegam foog ne ma nga fa soo demee ci taalibe yi bi jàpp ne ne ne daaw jàngal na leen waaw te aw ci yoon yooye kon na bàyyi waxoon ne ida saara xayru naasi surtout waraahu wayn xalla yow mën fal masiru baidun mboolem ñi nga xam ne ñi ngi topp ci Mawlana Cheikh Ibrahim topploowu leen kenn lu may topp yàlla waaw moom arab dafay wax ne ku la oo ci boppam sonal na la ku la oo ci leneen ku ci leneen sonal na la ku la oo ci boppam urij na la waaye ku la oo ci yàlla noppal na la bàyyi nag wowutoon kenn ci boppam ci yàlla doon oote moo tax taalibe bu mës a ñëw jébbalu bala ngaa tàggoog moom su ne la Ibrahima nga ne ko Ibrahima amul ndax kenn nekku fi lu may yàlla kooku lañu ñu te kooku du fi jógee mukk la àddina kooku nag moom la topp ba nga xam ne am topp barhaamu baaun waraun alifun thumma ha